waaw sama bu woo tey li ko waral rek mooy ñun ay marié lañu euh, ànd ak euh, ànd ak ministre Alioune Ndoye muy ministre de la pêche président de la pêche nommé ko mu ñëw fii di liggéey liggéey ba am solo euh, ànd ak acteurs yi rawatina marier yi ci wàllu projet indi fa ay camion frigo indi fa ay financement façon financement bu ne joxe na ko fi encadré ñu fexe marié di am ay jeunes di liggéey ak ñun guddi ak bëccëg liggéey bu rafet ñu gis à chaque fois rek ONC yi dañuy jóg monter ay nit ci tefes yi moonte ay nit ci marché yi ñu di ko saaga di ko xas di ko yekk lu mu xam ne lu lu lu loolu. li ñu jublu ci loolu nag mooy fii ministre la pêche bi fi ñëw rek ONC yi daañu def ay montage fexe ba dàqul la ñun nag ñu xam ne Alioune Ndoye liggéeykat la te am na programme boo xam ne nii am na njëriñ ci mareyeurs yi nekk Sénégal ñu ne ñu du seetaan loolu. te ñu dajale mareyeurs yu Sénégal yëpp dëkk bu nekk am na délégation bu fa jógee. ñu ñëw pour défendre loolu xam ne nii dañ koy teg ci nootu Alioune te saa ngi ko tegee mu tegg na li ngeen may waxal amul amul defuma ko mais à chaque fois ñu monter ay nit euh, tiital askan wi neen jaay nañ géej gi géej gi amatul jën euh, nàngam nangam te yooyu wax dara amu ci. loolu nag moo tax ñu ñëpp tey jii ñu boole suñu doole boole suñu suñu xam-xam boole suñu lépp nekk benn pour jàmmaarloo ak ñoo ñu xam ne ni vraiment dañuy xajamal euh, nguuru Macky Sall mais dañuy xajamal ministre la pêche. pour état Sénégal jëlee ko fa. ñu ne ñun kat dañuy lancer appel wax président Macky Sall ko Aliou Ndoye mi ngi waxtaan ak acteurs yi acteurs bu ñëwul laa yebbu leen même moom mi ngi woo ñëpp Aliou Ndoye mi ngi liggéey liggéey bu am solo secteur de la presse. Euh, ñooñu xam ne nag ministre bu fi ñëw war a liggéey war a àggal ses projets ñu xeex la deux mois nga fi def trois mois un an gën ngaa bëri ñu dàqul la ñu ñaan président Lopé moom mi xam ne moo am pouvoiru nommé moo am pouvoiru dàq mu bañ a dégg wax ñooñu ndax bu déggee seen wax itam bu dàqee Aliou Ndoye ëllëg ku ñëw itam lu raw li raw àll loolu koy def parce que ay ONC lañu yor na seen alal yor na seen i mais li leen tax a jóg mooy xeex nguur yi li leen tax a jóg ministre de la pêche leen tax a jóg mooy yàq ñun ñu xam ne ne àll yàqul liggéey ko tax a jóg defal ko tax a jóg moo tax ñun ñëpp ñu boole tey suñu doole boole suñu force pour àndandoo pour jàppale Aliou Ndoye jàppale président Macky Sall pour secteur la paix jëm ci kanam wàllu kaay bi ñuy wax nag naan euh, Sénégal euh, dañoo jaay géej gi xale yaa ngi dem géej c'est pas man def naa 40 ans ñeent fukki at def naa ko jën mais jën sama baaxoo bu nawetee jën am jën ñàkk nawet jën du am ñun bu nekkee ay xale ñu doon ñoom Thierno Mbengue ñoom ñii ay xale ci jën bu daate bu nawetee pour nga am loolu lekk sax problème la ndax doo gis benn jën bu loolee fii ak deux mois ci kanam wax naa leen leen su journaliste yëpp fii ak deux ñoo leen marché central fekk ma fa jën dana tuuru ci marché yi ci quai yi ci fépp ba xam ba xam ne ni dañu ak jooy ay chambre froide yu ñu ko def dañu jooy usine glace boobu léegi nag moom bu ka bu nawet bi amee nag dañuy profité pour yàq dara ministre bi pour tuddal Sénégal yi mais li ñu wax noonu dara du ci dëgg loolu ñu assuré Sénégal yi leen jën dana am géej gi am na jën mais moment bi mu toll dafa nekk moment boo xam ne moment wu kaay la te loolu depuis 30 ans noonu la géej gi doxee loolu la ñu waxoon tey jii nañ jàkkaarloo ak journaliste yi euh, wax leen ko